arbitre bi sifflé na Boy Niang doomu Jalaaw Boy Niang doon doomu Jalaaw doo jàpp ko jël nañu jàppante ñoom ñaar doomu Jalaaw Boy Boy Niang Boy Niang école de lutte Balla Gaye Boy Niang moo ñu wan ginnaaw doomu Jalaaw lañu jàkkaar lool ñoo ngay mbokk yi grand combat baa ngi noonu Boy Niang doomu Jalaaw doomu Jalaaw dóor na léegi doomu Jalaaw nga koy takk doomu Jalaaw takk na Boy Niang doomu Jalaaw takk na Boy Niang doomu Jalaaw takk na ko Boy Niang ras na doomu Jalaaw takk eh, Boy Niang caxabal ba daa sori da koy da koy wala da koy tegal 16 wala doomu jalaaw lu mu koy def doomu jalaaw booy ñaa doomu jalaaw moo nge lu xonk bu weex bi am lu xonk li doomu jalaaw booy ñaa ñaa numéro 2 ak doomu jalaaw nañu commencé woon yeggalew ñu ko accélération waaye ku ne ñam nga sa morom Boy Niang 2. Boy Niang moomu Jalaaw xàcc na fu mu koy teg Boy Niang ngay bi fu koy teg. waaye combat bi yomb. Boy Niang 2 ci ñoom ñaa ku ci nekk dafa am ci loo jógee. lamb ji dafa am fu mu la war a yóbbu. fi mu toll nii épreuve de force bi. Boy Niang numéro 2 doomu Jalaaw. Boy Niang daa jàpp ndengeñ. da koo bëgg a da koo ndànk Boy Niang. Boy Niang doo kalaat na ko kal bi demul. doomu jalaaw ngay dóor ci maasoir ba fàq na ko. doomu jalaaw Boy Niang. ñoo ngay xeex. doomu jalaaw Boy Niang waaw waaw. indi waat nañ lu xew. abi bi àtte na. lu xew Ardo Ardo. Boy dem na Ardo. Boy Niang dem na Ardo. Boy Niang 2 doomu jalaw Boy doomu Jalaaw. Boy Niang doomu Jalaaw. doomu Jalaaw bu ne ni sengoor yi la jàpp waaye Boy Niang 2 am na loxo ci ngeen bàyyiwaat na lu mu ca doomu Jalaaw. Boy Niang 2 doomu Jalaaw. Niang 2 ak doomu Jalaaw ñu xeex xeex mbokk yi suba prince moo ñu fi woo drapeau Bougane Gueye dox ci diggante caatu boy Bamba ak ki nga xamante ni ni mooy Modja mouvement bu mu def génn saako yi moom moo ñaa espoir nga ca saako ya ak doomu Jalaaw doomu Jalaaw Boy Niang drapeau Moustapha Moustapha Meng Boy Niang 2 Domou Dialaw Boy Niang 2 Domou Dialaw drapeau Bassirou Karo na fi ñoom ñaar dafa mel ni dañoo sonn di noppalu waaye drapeau Moustapha Meng doon dañoo tegante bopp ku ci nekk jéggi sa moom digg géew gi diggante Papa Boy Djiné abi bi àtte na ñoom ñaa ku ci nekk am nga carte avertissement keneen ku ci am benn làmb ja jeex ñoom ñaa kenn ku ci am làmb ku ci am benn làmb ja jeex fi mu toll nii max niil ngeen gën a jege. ñu ngay lewaatoo Boy Niang ngay mépp waaye demul seen lewaatoo bi dafa sori ñoom ñaar ñëpp kenn bëggu daanu ku ci nekk yaa ngi cokkaas waaye dalul danoo sonn ku yooyu amul impact wala boog bu daloon sax du def effet. abit bi àtte na max ba jeex na wala làmb ja jeex na max niil max niil